yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaar fukkeelu njàng mi ak ñaar yàlla tànn na yosuwe ngir mu yóbbu waa Israël ci réew mi mu leen dig nanu bamtu nettali yi weesu benn ndigali yàlla yi lan lañuy jëriñ ndigali yàlla yi dañuy xamal nit ñi ne bàkkaar nañu te yàlla dafa bëgg ñu mat ñaar ndax nit ñi mën nañu mucc suñu toppee ndigali yàlla yi déedéet ndaxte nit ñi mënuñu topp ndigali yàlla yi fu ñu toll ñett lu tax yàlla sant waa Israël ñu samp mbaaru màggalukaay bi yàlla bëggoon na nekk ak nitam yi mu tànn ci mbaaru màggalukaay bi yàlla bëggoon na am kóllëre ak ay nitam ñeent sarax yi lan ñuy jëriñ dañuy fàttali nit ñi ne peyooru bàkkaar mooy dee dañuy wone ne nit ñi nangu nañu ne bàkkaarkat lañu te tuub nañu seeni bàkkaar dañuy fayal nit ñi seeni bàkkaar ab diir juróom ndax sarax dina tax nit jub ci kanamu yàlla déedéet sarax doon na wone ne nit ki bàkkaarkat la sarax yi misaal lañu ci sarax bi amul bàkkaar bi yàlla di indil nit ñi sarax boobu rekk moo doy yàlla juróom benn lu tax mala bi ñu doon saraxe warul woon am benn sikk ndaxte misaal la woon ci sarax bi amul bàkkaar bi war a ñëw ndaxte yàllaa ko santaane woon itam juróom-ñaar lan la yàlla daan def bu nit ñi tuubaan te saraxe daan leen baal seeni bàkkaar mbind mu sell mi nee na ci lim ya saar fukk ak ñett aaya benn aaya ñaar aaya ñaar fukk ak juróom benn ba aaya ñaar fukk juróom ñett aaya fanweer ak aaya fanweer benn borom bi ne Musaa yónnil ay nit ñu xool réewu kanaan mi may may waa Israël tànnal ci giiru Israël bu nekk kenn ci kilifa yi ñu dellusi ci Musaa ak Aarona ak nit ña ñëpp ca Kadees ca màndingu Paran ñu wax leen lépp li ñu gis won leen ay ñam yu ñu jëlee ca réew ma lii lañu wax Musa dem nañu ci réew mi nga ñu yónni réew la mu bare meew ak lem lii lañu fa jële waaye nit ñi dëkk ca réew ma ay ponkal lañu te dëkk ya dañu leen aar ak ay tata yu kawe gis nañu fa sax seti anak ponkal ma kaleb noppiloo ñi doon ngun-nguni ci kaw musa mu ne nañu yéeg jël réew mi ndax ñooy am ndam waaye ñu àndoon ak moom daldi ne mënuñoo song réew mi ndax nooñu ëpp doole mbind mu sell mi nee na ci lim ya saar fukk ñeent aaye juróom benn ba aaye juróom ñeent waaye ci ña demoon xooli réew ma amoon na ca ku ñuy wax yosuwe doomu nun ak ku ñuy wax kaleb doomu sefune ñu xotti seeni yére wax ak waa israel yépp ne réew mi ñu wër ngir seet ko réew mu baax la su yàlla ànde ak nun dinañu yóbbu ci réew mi teg ko ci sunuy loxo réew la muy wal meew ak lem lenn rek bu leen dégg di yàlla te bu leen ragal ñu dëkk ci réew mi amatuñu lu leen aar te yàlla ngeeg nun bu leen ragal bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi nekk ci nettali bi yàlla tànn na yosuwe ngir mu yóbbu waa israyil ci réew mi mu leen dig nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla tànnee yosuwe ngir mu yóbbu waa israyil ci réew mi mu leen dig léegi waa israyil ñëw nañu ba jegeñ réew mi leen yàlla dik yàlla wax Musaa mu yónni fukki nit ak ñaar ñu dem xooli réew mi ngir xam fan la seen doole toll. nit ñi Musaa yónni toog ca réew ma ñeent fukki fan ñu dellu si ak ñam yu ñu jëlee ca réew ma ñu ne réew ma naat na lool ñu ne itam waa Israël mënuñoo am ndam ci ponkol ya fa dëkk waaye ñaar ci ñi ñu yónni kenn ki tuddoon yosuwe keneen ki kaleb bañ loolu gëmoon nañu ne waa israel mën nañu daan ponkal yooyu ndaxte yàlla moo leen dig réew mi waa israel ragal dugg ca réew ma waa israel dañu dëgër bopp ñu ne dañuy folli musa fal keneen waaye yàlla doonul seetaan loolu yàlla mer lool ndax waa israel gëmuñu li mu leen dig yàlla wax Musaa ne ñi am ñaar fukki at wala lu ëpp ci waa Israël yi dinañu dee ñoom ñépp ci manding mi ba mu des Yosuwe ak Kaleb mu ne waa Israël yi dinañu wëndeelu ci manding mi ñeent fukki at ba ñi gëmul ñépp dee noonu waa Israël wéy ci seen tukki gannaaw gi waa Israël yi jàmbat nañu ci kanam yàlla jàmbat nañu ci kanam Musaa it bi ñuy jàmbat yàlla yónnee leen ay jaan ñu màtt leen ñu bare ci ñoom dee waa Israël xam ne bàkkaar nañu moo tax yàlla àtte leen ñu ñaan Musa mu tinul leen yàlla ci jaan yi yàlla wax Musa mu defar ab jaanu xànjar lonk ci ab bant ci dugg dalukaay bi su nit ñi xoolee jaanu xanjar ji matt mattu jaan yi duñu leen rey ji misaal la buy wone ni yàlla amee yërmande ci nit ñi donte sax bàkkaarkat lañu jaan yi matt nañu nit ñu bare waaye yàlla ci yërmandeem musal na leen bi musaa demee ba màggat waxoon na waa israyil ne benn bës yàlla dina yónnee ab yonent bu mag buy doon ràmmkatam dina doon ab musalkat bu mag ni ko musaa nekke woon yàlla woon li mu digoon ak gannaaw gi Ibrahima bi Musa deewee yàlla def Yosuwe mu doon njiitu waa Israël turu Yosuwe mu ngi tekki musalkat yàlla wax Yosuwe mu jiite waa Israël ñu jàll dexu Yurdan te nangu réew mi yàlla digoon Ibrahima Isaaxa ak Yanqoba bi waa Israël jàllee dexu Yurdan ñu agsi ci ab dëkk bu ñuy wax Yeriko dëkk ba nag ay tata yu kawe lañu ko wërale ngir aar ko yàlla wax yosuwe ne dina leen jébbal dëkk bi yàlla wax yosuwe wene moom ak ay xarekatam nañu dox ba wër dëkk bi benn yoon bés bu nekk ba mu mat juróom benn fan te juróom-ñaareelu fan wa war nañu wër dëkk bi juróom-ñaari yoon te sëriñ yi yor seen liit di leen wol ak doole noonu na nit ñi itam yuuxu ca kaw su ko defee tata ya dinañu daanu te loolu moo am tata ya daanu nañu waa Israël jël dëkk ba yosuwe njiit mu mag la woon ndaxte déggaloon na yàlla benn bés yosuwe ak waa Israël ñu ngi doon xare ak seeni noon yàlla tiital seeni noon bi ñuy daw yàlla tawal doon ji galaas ci seen kaw yose ragaloon na ne dina guddi balaa ñuy am ndam noonu yosuwe ñaan yàlla mu téye jant bi ba daan seeni noon yàlla def li ko yosuwe ñaan noonu waa israyil jël ndam li yosuwe gëmoon na li yàlla digoon ibrahima moo tax it yóbbu na waa israyil ci réewu kanaan waa israyil am nañu ndam ci fanweeri buur ak benn ci juróom-ñaari at nangu nañu réew mi yàlla digoon ibrahima yàlla waxoon na Ibrahima ne ay sëtam dinañu doon jaam ci misra waaye benn bës dinañu dellu ci réew mi mu ko diggoon loolu am na fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lu tax fukk ña gëmuñu woon ne waa Israël mën nañu nangu réewum kanaan ndaxte gisoon nañu ponkal ya fa dëkk ak tata ya waroon dëkk ya ndaxte gëmuñu woon li leen yàlla dik ne dina leen jox réewum kanaan ñaar lu tax yosuwe ak kaleb gëmoon ne waa israel mën nañu nangu réewum kanaan li leen yàlla dig ne dina leen jox réewum kanaan ñett lu tax yàlla wax musa ne ñi am ñaar fukki at wala lu ko ëpp ci waa israyil yi dinañu dee ci manding mi ba mu des yosuwe ak kaleb yàlla meroon na lool ndax waa israyil gëmuñu woon li mu leen dig ñeent naka la nit ñi jaan matoon mënoon a mucce su nit ñi xoolee jaanu xànjar bi matt mattu jaan yi duñu leen rey juróom ndax nit ñi mënoon nañu muccee neneen déedéet juróom benn naka la yàlla jébbalee waa Israël dëkk Yeriko dafa daaneel taata ya waroon dëkk ba juróom ñaar ndax yàlla nangu na ñaanu yosuwe ngir mu téye jant bi bañu daan seeni noon waaw yàlla def na li ko yeesuwa ñaanoon noonu waa israel jël ndam la juróom-ñett ndax yàlla musal na waa israel ci misra te yóbbu leen ci réewum kanaan ni mu ko dige woon ibrahima waaw lan la yàlla dig Adama ci mbiri set bi ñëw ab sët dina ñëw ngir daan seytaane te musal ñu ci bàkkaar ngir ñu dellu jàmmook yàlla fukk yàlla def na li mu dige woon ne dina musal wa Israël ci misra kon ndax dina def li mu dige ci mbiri sët bi ñëw ngir daan seytaane waaw yan melukaan yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla bëggul bàkkaar fukki waa Israël yi demoon xooli réew ma gëmuñu woon ne yàlla dina leen jox réew ma noonu yàlla daan na waa Israyil ndax seen ñàkk ngëm ñàkk ngëm bàkkaar la mag ñépp dee nañu laata ñuy àgg réew ma ba mu des yosuwe ak kaleb waa Israyil jàmbat nañu ci kanamu yàlla ak musa noonu yàlla yónnee ay jaan ñu matt leen ñu bare dee nit ñi mënuñu woon musal seen bopp ci jaan yi suñu deful woon li leen yàlla sant doon nañu dee yàlla daan na waa kanaan ndaxte daaw ñu koy jaamu waa israyil rey nañu lu bare ci kanaan gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla musal na ay nitam ci jaan yi donte sax waa israyil ñu ngi jàmbat ak di dégg di yàlla yàlla yóbbu na leen ci réew mi mu leen digoon yàlla lu mu dige def ko yàlla digoon na Ibrahima réewu Kanaan yàlla yóbbu na waa Israël misra waaye yàlla génne na leen misra ndax li mu digoon Ibrahima li yàlla digoon Ibrahima def na ko bi waa Israël jàllee dexu Yurdaan ba nangu réewum Kanaan yàlla wax na Musaa ne dina yónni ab yonent bu mag yonent boobu dina doon kiy matal li yàlla digoon Adama ak gannaaw gi Ibrahima yonent boobu dina daan seytaane ni ko yàlla dige woon aadama ak ibrahima yàlla mooy borom doole yàlla mënoon na def ba waa israel jël ndam li wala ñàkk ko ci ab xare yàlla moo dogal kii am ndam beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla woowee wil